lay euh, ñaanal fi ñu nekk ñun man sa papa ñëpp nga dépassé ñu te yaa ci yoon bi mm-hmm. di ko ñaanal également nos jeunes bons frères euh, di rafetlu rek ndaje mi euh, di ci félicité bu baax booy ñaan parce que initiative bu mel nii su amul woon làmb dina am lu ci manqué mais ni nga def loolu moom mooy sa warugar loolu moom moo war ëmb loolu moo yi parce que ku nekk yaa ngi doon def sortie di euh, wax ci situation làmb ak coronavirus bi fi mu toll mais déclaration individuelle réglé wul problème li koy réglé mooy ngeen ànd booloo taxaw parce que aujourd'hui l'heure est grave l'heure est grave et la situation est dramatique autorité yi il faut ñu xam li xew te li xew pour ñu xam ko il faut ñu wax leen ko parce que xëy na ña leen war a wax duñ leen wax li xew li xew mooy la situation de l'arène est grave l'heure est grave la situation est dramatique hmm. tey tamit réew mi kenn ëpp ci cër ñii dañu ci am cër bu mat sëkk am ci taxawaay bu mat sëkk am lu ñu tekk ci réew mi am lu ñuy jëf ci réew mi liggéey te ñu nekk seen ginnaaw bari lool kon tey bu ñu demee ba l'économie je par parle pas de la lutte je parle de l'économie de la lutte parce que c'est une économie c'est une industrie la lutte bokkul ak yeneen bagage parce que tey ñuy dund ci làmb kenn xamul nu mu toll c'est pourquoi je parle de l'économie de la lutte dafa dépasser mbër yi nekk ci géew bi di dóorante dépassé na leen jaaykatu gerte bi jaaykatu crème bi jaaykatu boisson bi transporteur bi euh, ki nga xam ne day defar ay t-shirt infographiste bi ñëpp jaaykatu essence ñëpp dañuy dund ci kaw làmb kon tey c'est toute une industrie qui est et aussi loin que le dit Boy Niang Boy wax xëy na sax daf a raay tuuti parce que diplomatie lay dawal mais ñoo l'heure est grave la situation est dramatique mbër yi dee ci géej gi kenn xamul nu mu toll il faut qu'on dise la vérité aux autorités boo demee Mbour da gis tànt boo gis ñaari tànt yi ñetteel ba mbër moom moo dee moom moo dee ci géej ma laaj assurance mu ne ma benn mbëru tànk desatul sama écurie ñenn ñi dem nañu ñenn ñi dee nañu bër gi dem ba ma dalal jamtéer mu ne ma grand boy yi ma doon toogal yëpp bato bi lakkoon ci la ñu duggoon dee nañu mais c'est dramatique pourquoi mbër yi di somb parce que l'espoir est perdu et face au désespoir on ne peut pas imaginer la réaction de l'homme parce que nit ñi ay góor lañu mënuñu téye di tàllal ay loxo lii la am muy seen métier li ñu am muy seen métier il faut ñu jox leen cër bu ñu leen parce que ñoom politiciens yi dañuy utiliser mbër yi bu ñu leen soxla dañuy utiliser popularité mbër yi pour defar seen affaire politiquement maintenant on pointe du doigt les politiques de ce pays pour qu'il donne à la place qui la, sienne. Ah. Parce que la lutte n'est pas exportée, la lutte n'est pas importée, la lutte c'est notre lutte, c'est notre sport national. Et je pense qu'aujourd'hui, nga xam ne moom moo xew dix mois sans activité c'est énorme c'est ban nit mooy toog dix mois liggéeyoo ba pare am loo suturloo te ñii dañoo gore mais ñu ngi bëgg dee ku la ko wax ku la ko waxul ñu ngi bëgg dee alors ñoom aussi ñu ngi bëgg a parce que joxe sa avance nekk dans l'incertitude dafa metti jël avance nekk dans l'incertitude dafa metti ci mbër donc il faut que le problème soit réglé li koy réglé mooy nag mooy ñu jéem a xool naka la ñuy def ba compétir il y a pas autre solution bëre day am par la force doole ba mënul ñàkk quelle que soit la situation nit ñi dinañu bëre comment maintenant s'organiser pour faire la lutte, c'est là la question. Mais il faut que les gens luttent. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, li nga def dañ koy rafetlu ëmb. Merci pour ta présence. Je pense qu'aujourd'hui, le seul combat seen combat yëpp dugal leen ko seen tiroir ngeen toog mais benn combat rek moo am tey c' est le combat de tous les lutteurs mooy que l'arène reprenne ses activités loolu rek moo fa la làmb ji et je pense que amul tey benn mbër bu war am soxla bu la gën a ñor que lii ni Eumeu teewe ténor yëpp noonu la ñu waroon teewe parce que c' est un combat de principe c' est de survie c' est bu nga xamante ni da ngeen ko war a mën a ñëpp ngi liggéey maa ngi liggéey yéen ngi liggéey boo demee transport en commun nit ñaa ngi ni buut ci oto yi boo demee marché marché yaa ngi fees dell foo dem nit ñaa nga fay dajaloo pourquoi du ñu de quoi du et je pense que ça c'est un premier jalon. ñaar euh, uh-huh. man xam man du ma raay man je parle man kenn yorul sama njël maa ngi dugal sama li may wax dama koy wax lii jalon bu njëkk la mooy toog alerté mais bu alerté jeexee réaction amul beneen jalon dañ koy posé. il faut que les gens comprennent que une lutte est graduelle. la première étape c'est ça li ngeen def mais deuxième étape bi e allez frapper fort il faut que les gens comprennent que li tey doo leen toog yàgg yàggaaram seen teranga ñu koy menacer et je pense que si ñun suñu gros bras yi bis bu ñu jógee wàcc ci dëkk bi ni leen dinañu bëre par force ku ci nekk di nga xam ne war nañoo mën dañu bàyyi gars yi ñu dellu ci suñuy activité jàppale promoteurs yi ñoom également ñu delluwaat ci seen i activité force Covid 19 am na ay promoteurs yu ci mooy ñu jot mais force Covid 19 est que egg na ci mbëri. anam anam lu ñu jox mbëri daal rajo ko ñu leen te dafa bokk ci société bi bokk ci li dundal société bi di contribuer ci économie réew. kon on doit vous donner la place qui la vôtre vous êtes des ambassadeurs du Sénégal fu nekk dem ngeen ko teewal fa Sénégal tey jot na Sénégal delloo leen jukkal dans ce contexte là Covid bi am na fu mu gën a métti fuuf. te pourtant la vérité elle commence à jouer devant des des te pourtant la fay dee deewu fi nga dem feneen la fay dee deewu fa te nga ngay compétir ñu ngi def seen i mbir kon nañ ñu bàyyi di compétir Modou voilà le cri de que je voulais lancer et je lance vraiment un appel aussi aux doyens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw xale yi tamit ñun ñëpp nañu mobiliser wu la main dans la main la force de frappe de la lutte xajul ci xeex coronavirus. merci beaucoup